acharné na ci su Dakar deux pois deux mesures yooyu nit ñi bëgg ñu continuer di ko nangu ci réew mi bu du woon tey vigilance su Déthié Fall dem jël temps xool man bi moom wooyee wax ma ko moom ak xalifa dama ko ne est-ce roq yi du góor wala mbay mun a du góor ndax loolu mënul nekk ndax loolu day am léegi ah gis nañu ay góor yu yor jigéen turu jigéen wala jigéen yor turu góor mu ne ma xaaral maa ngi maa ngi jël dossier individuel yi pour bu dire que du lii mënatuñ ko parce que boobu ñoom xamuñu moom lu mu doon li lu mu doon xool lan la mu ne xaaral ñu ngi may jox dossier individuel yi bi mu jëlee dossier individuel ba jël référence yi xam nga bu ñu nee Maymuna Roqaya Ndaw fille de Maymuna Njaay fii de kooku moom amatul li ñuy lam-laame kon ñii sérieux wuñu dañuy tappale dañuy jël liste bennoo Bokk Yaakaar jàllale ko d'office daal di acharné wu ci liste nag opposition bi di xool ban virgule moo manqué moo tax keroog wax naa ko administration bokk na ci ñett yi ma lim keroog ne suñu moytul ñooy taal réew mi parce que nit ñi mën nañu continuer di subir comme ça lu neex Macky Sall neex na leen amul loi amul règlement loolu du yoon ñetteel bi nag mooy lii lan la firnde li mu firnde mooy bennoo bokk yaakaar yaakaaram tas na munul am liste national suñu tataa mi borom xam-xam ju bari ji ak tegal gu rafet gi waaye nag dafa yàlla da ko nattu élection bu mu jublu rek moom day def xalangu ba mëkk suuf lay def tataa doo campagne bàyyi bàyyi ba beneen loolu na firnde te gisuma lu ko mën a sauver on accélère on accélère rek mi ngi ñëw ak dara mënu koo sauver beneen élection rek loolu moom dafay leer nañ ñi ne ñu layal lenn ci société civile bi nga xam ne dem nañ ci télé yi ne déedéet liste Dakar baaxul waaye liste Benno Bokk Yaakaar baax na te Sénégal nag politicien moo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 bii ci liste national la munul am liste nationale 53 députés yi baay bàyyi ba beneen loolu na leer waaye nag ba léegi dàqul beneen bi de mooy parrainage dañ cee am benn bu ëpp loolu yoon da cee wax lu leer jalu sax ñuy wax jurisprudence constituée parce que la loi n'est même pas interprétable xam nga fu leer kenn du interpréter dañ ci am benn bu ëpp tata mi wax na ko nee na dañ dañ leen buggoon woon sax moo tax ñu yokk ci benn moom xam na ni su doon loolu dañ ciy yokk téeméer wala junni waaye duñ ci yokk benn daf leen rëcc looloy dëgg ji kon conseil constitutionnel liste nationale kenn waxatu ko l'ensemble des listes de Benno Bokk Yaakaar la wax ils ont un parrain de plus ils ne peuvent pas compétir lii nag mooy dëgg ji dafa am ñoo xam ne nag yéene la boroom a ci mujj mujj surux ñoom seen yéene bi ñu amoon jubal ko ci waxuma la rek yeewi askan waaye opposition bi yëpp ñoom ñoo ci mujj surux Sénégal yëpp nag lañuy waxal réew mi ñun ñoo ko bokk réew pour mu dox il faut que li ñu tëral ne lii mooy chart bi ku mu war a appliqué wu ci yow mu appliqué ko moo xam Macky Sall la tudd moo xam xalifa Sall la tudd moo xam euh, yow it Sall nga sant <laughs> moo xam Ousmane Sonko la tudd ku mu war a dal ci moom rek na dal ci moom mais suñu buggee jël loi bi di ko appliqué à géométrie variable nit ñi duñ ko nangu loolay indi ay fitna ci réew mi ñu ci woo ñëpp nag kilifa yi keneen ak keneen lii lu leer naññ la du lu ñuy lam-laame ce que j'ai dit en wolof c'est de commencer par féliciter notre mandataire national monsieur